waaw ñëpp di ko ñaawlu Macky Sall jël na ko. waaw dugal ko ci biir cabinet am di liggéey ak moom moom Ndiogou Wack Seck booba Macky Sall mooy premier ministre. Mm-hmm. ñu jóge ci journal. deuxième personne bi fi njëkk a ñëwaat ñu gis ko muy saaga publiquement te nëbb ko. mu ñu koy wax Souleymane Jules Diop mooy jamonoy Skype ak Seneweb dégg-dëgg. waaw nga xam ne day jàpp sëriñ si bàyyiwut kenn bàyyiwut waa Touba. Mm-hmm. sëñ Abdou Siñoor ak mën soo ak bàyyiwut waa waa Tiwaawan. dem na ba fi dendalee saaga daanaka ak sëñ Saaliw mi Cheikh mm-hmm. Béthio ku mu mm-hmm. bokkalul gis-gis saaga na la mm-hmm. ba Macky sàll faloo dafa dem ba euh, Canada jëli ko indi dugalaat ko ci cabinet mu fekk fa njóogu wàkk sekk muy ñaari saaga saagakat biñ doxaatee tuuti Californie ñëw waaw bi Californie ñëwee di saaga institution yi lay saaga moom na gisuma ko mu saaga sëriñ waaye gis naa ko mu saaga gendarmerie ensemble police ministres yi maanaam bépp institution bu nekk Sénégal saaga na ko. Mhm. Macky Sall dem ba France. jël ko toog ak moom def ci def ak moom live ci même scène bi mu doon saaga institution yi. Mhm. ba noppi boole ko ci partem mhm. kon ma ma ngaa ñetti saagakat. waaw ministre yi Abdou Diouf. waaw ministre yi Senghor. ministre yi Abdoulaye doo ma ci génneel benn ministre buñ ne jamono bi muy exercer ministre gi. taxaw na saaga nday publiquement. ba Diattara. nekk na ministre. waaw taxaw saaga opposition ab opposant tudd ko ay awraam di ko saaga. publiquement te booba la. te bi mu paree Macky da ko promouvoir yokkalaat ko ministère am. Mhm. kon beneen saaga kata a ngoog. ñu jóge ci. Mhm. barki démb def na loo xam ne moom du ma ke maanaam askan wi wuruñu ko ko baal ba yow mal xayam. mooy jël kooku ñuy wax kura Macky. Mhm. nga xam ne da ngay xoolaat foofu sax kan mooy Macky Sall. parce que kura Macky dama ko seetaan fii ci int 2STV euh, mu ne. waaw ñu ne ko lan moo la dugal ci Macky Sall. Mm-hmm. mu ne damaa gis Assane Diouf tijji ab Facebook di saaga Macky Sall. Mm-hmm. man it ma tijji sama Facebook. di mm-hmm. saaga opposition bi. loolu maanaam ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy def. moom ah. Assane Diouf a ko inspiré. Assane Diouf Macky sàll lay saaga. kura Macky askan wi lay saaga. léegi xoolal Assane Diouf lan mooy ak mujjëm. waaw jëlee Europe jëlee États-Unis indi. damm tànkam dajji seen kër toj néegam. yóbbu ca kaso bi tëj ñaari yoon. Koura Macky mi nga xam ne moo Assane Diouf ñoo nuroo même li ñu doon def. waaw Koura Macky États-Unis lañ ko jëlee andi. Mhm. jox koy million mu nekk Pikine gii di ko séddale. Mhm. dugal ko assemblée nationale mu falu nekkub député. te ñoom ñaar ñu bokk même fonction kii di saaga kii di saaga. Mhm. kii nga mu tànkam tëj ci kaso bi kii nga fal ko yóbbu ko kii kon Macky Sall bañul kuy saaga. mais kuy saaga askan wi la bëgg. bañut bëggut kuy saaga waaye ku koy saaga la bëggut. saa booy saaga askan wi. mu jël la parce que Koura Macky. waaw Macky man naka ngay mën a bàyyee ka ñuy wax ramamaki mu nekkoon ab ab ab artiste comédien bu daan ànd ak Mame Mbaye Niang mii. bu yàgg ca APR yu njëkk ya. fan la nekk ba jëloo ko nga dugal ko ci sa list hmm. bi mu Coura Maki nekk nekk nekk nekk député. Hmm. Adja Soda Dieng mii di woote ci rajo yi. waaw nga xam ne 2008 2009. ma hmm. ab ab ab restaurant ma nga jàkkaarloo woon ak place Kabou Fall ca Touba Darou Khoudoss ma xam ko. waaw maa ngi moom daan nañ bokk benn pick-up. di dem ci manifestation yi APR yi. jamono boobu maa ngi ànd ak Cissé Lo Mm-hmm. dégg nga booba Macky Sall bu ma saan ñëw tuubaali koy topp matul ñaar fukki nit. Mm-hmm. dégg nga ma Adja Soda Diang anam. Mm-hmm. ana ñoom ñoom ñoom ñoom Modou Fall Kaala ana ñoom Fallou Lo Sam. Ah, ana Baye Maguette Diakhaté maanaam ñi nga xam ne. 2007 ba léegi ñu ngi topp sa ginnaaw di dart dart di daw. waaw Bas Diagne ñoom ak amu ci kenn koo xam ne maanaam. maanaam am na dara ci Macky Sall. benn waaye boo xam ne bari ki démb la tijjib Facebook di saaga donc Macky Sall li mu def mooy jël ko dalal ko ne ko gis naa liggéey bi rafet na. waaw ci saaga si. dégg nga. waaw ñu jóge ca nga lijjanti ko ba ab liste a ah, liste boo xam ne waa APR mënuñu cee nekk. nga jël nga jël nga jël Coura Macky dugal ko ci. Mm-hmm. mënut a falu parce que vingt-neuvième la nga fexe ba démissionné loo ay nit pour mag Coura mën a dugg. Mm-hmm. pour rek muy saaga askan wi te Coura Macky. Mm-hmm. mësuma gis man. nit ku ko gën a ñàkki teggin. Coura Macky mësuma koo gis. dafa ñàkk teggin Coura bàyyiwul waatu waati waawoon. waati waawoon. dégg nga la mu ma Iran naan Iran awraam la toll ak. daa dañ koy kuus ak hmm. naan ay ay ay ay ay ay daa am doom ju mu ëmbal hmm. jóge ca ñëw ñëw ci mbàkke mbàkke yi gis naa ko mu am ay sëti sëñ Touba. Hmm. yum naan dañ leen ay góor jigéen lañ dañ leen di juutal moo ko bërki bu yàggul dong laa gis nii mu di ko wax ah dem ca waa kër Baye Niassé di saaga ñoom Baye Mbaye ak ku ne mu saaga la Niasseen yi jóge ci gis naa ko fii mu jàpp Iran da euh, kii euh, euh, Bougane Gueye lu ne wax na ko ko saaga fii seex Niass yow mii bàyyiwu la Mm-hmm. bàyyiwut soxay bu muy bàyyiwu ma ku ne mm-hmm. gor su ne mu daggal la saagaw ndey mm-hmm. Macky Sall amul lenn lu muy fayee sénégalais yi lu dul jël kooku nga xam ne kura mënoo wax ne maanaam ay nit la am amut nit amuti nit du Amérique la ko am du fii la ko am waaw dégg nga mënoo wax ne euh, euh, influence la am walla xam-xam parce que kura fecc katu bale la woon Hmm? bale da daan fecc bale waaw bale loolu doo la man kay fecc bale la daan def hmm. dégg nga ak di ànd ak badu badu benn góor jigéen boo xam ne hmm. moo njëkk a nekk góor jigéen ci réew mi moom loolu la daan àndal ah bon moom bëkk néegu badu la woon foo masan fekk badu badu góor jigéen ñoom ñaar ñooy ànd moom voilà mhm. mu jóge fa dem États-Unis waaw après nekk ci Facebook bi di saaga ndey Macky Sall andi ko fal ko maanaam defoon enquête de moralité ci moom mais yow Cheikh Bara yow du du ko fal mhm. ah. mais loolu lépp Macky mhm. Sall moo ñu tooñ képp koo xam ne APR nga nekk di sonn ci moom. amul ci yow soxla. waaye hmm. képp koo xam ne maanaam osé nga. waaw taxaw di saaga kilifa diine yi. wala nga taxaw di saaga gor ñi nekk ci réew mi. Hmm. xaritu Macky Sall nga. te ca njóogu wàkk sekk ba tey. waaw seetlu leen képp ku mas di saaga. Hmm. Macky Sall def na la ci wetam. d'accord ba noppi nag bu taxawee fii naan saaga baaxul. loolu moom mayetuñ man man comme kuréel Macky Macky Sall fal na ko fii ci assemblée bi. man Cheikh Bara moom mayetu ma Macky mu taxaw fii ci penc mi moom. ne saaga baaxul.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 saaga buugaan saaga Seex Jas mu jëkku waaye bu amee ay bokk mhm. du ma saaga du la saaga waaw ci lan bu amee ay bokk wala mu am xam-xam wala mu am gàllaaj ah. man du dugg ci man xanaa baatin ngay jaar ak moom <coughs> non man xam nga Sa Ndiogou man baatin mm. dama ko ay butit laa ko jàppee fa ma ko denc daa sori mm. waaye man damay magum korojoj magum korojojoj korojojoj waaw yàgg ah. fi waaw maanaam naweti daaw yàgg yu ren yi fekk ma fi mhm. néeg buy senn ma xàmmee ko moo tax kuy dof doflu di reew reewlu mhm. danga ma fiy bàyyi ah, man gis nga Coura Macky bu dof dofloo waaw maanaam euh, pikin tëli bu mag ca puuru yaa baaba laay dem tàmbalee ko ca ndeyam may mun a géy jaar ci magam ndey faatu géy mhm. ndey faatu jaar ci abi jaatum ndeyam waaw ba ñëw ci jibi jóob fay mi mi jur taawam boobu waaw doo ko ñëw ci moom bis bu ma ko barke sëñ bàmba bu ma bàyyiwut bis bu ma ko bis bu ma ko defalee benn live waaw Macky Sall dina ko woo dàq ko te dootu xaj su ko neexee nag na ma ma xool Cheikh Bara defal ndànk yow dafa mel ni yàgg Gaston sorewu leen yow dafa mel ni nga dem wala ci ay Sane Ndiogou waaw man dama ne man dama ne <laughs> Sane Ndiogou laa ko téye dama ah. ko tiim comme sama loxo bi lu la fi réer woo ma moo tax kuy réew réew lu bàyyi ba nga romb ma rek waaw bu bëggee rek ma dem ca turub ca ca may mun a géey ndeyam ba ca Paa Fodé ma ma ma ma yoroon yaayam. ah Paa Fodé waaw. waaw <laughs> ak Faat Paris. ah Faat Paris. doomi ndey Faatu Magam. na na foofu rek ma yem foofu bis bu ma tuddee. Uh-huh. dinaa xam ne maa ko gën a jobbal téeméeri junni yoon. Eh! <laughs> Cheikh Bara macha allah Cheikh Bara wax na lu ma gëj a dégg jobbal. waaw ah. loolu loolu. Sadio ñun ay donga lañ. xam nga gars ñi dañu ñuy gis ñu toog nii rek yaakaar ne dañoo xamul li xew. waaw wallaay waaye yëggee li xew. ku ma ci jël sa dossier. boo paree da nga génnum réew. d' accord jërëjëf Cheikh Bara macha allah ñu daa dee continuer kon defe naa ne soxna sa dégg na loolu nga xamante ni bi moom la ko wax kon moytu leen Cheikh Bara Cheikh Bara dañuy ñëw nag ci li nga xam ne moom la ñuy wax nemmeeku tuur Ousmane Sonko bi. Mhm. maanaam. Ousmane Sonko mi ngi nemmeeku tuur waaye dafa mel ni moom àndatut moom dong parce que fu mu tourné gendarme yaa ngi koy allumé naan ko busum peew nu mu demee ni noo gisee nemmeeku tuur euh, Ousmane Sonko bi. ak waaw nemmeeku tuur bi. waaw gis naa ko hmm. am na ci.